bi ci nekk ci YouTube bi di jëfandikoo xam-xam wala ngay seetaan TikTok bi di jëfandikoo xam-xam yi ci tàbbal ñu leen di jaajëfal baax yow mi nga xam abonné goo nga abonné nag ndax nga ngeen di mën di jot yenn secret ak yenn vidéo yi xam moom la ñuy dugal di ko tàbbal yi tey jii nag ñu ngay ñëw yéen ci wàllu li ñuy wax euh, faru rab faru rab xam ngeen ni lu sonal lu sonal nit ñi la rawatina jigéen ñi rawatina góor ñi nga xamante ni dañuy toll ci takk soxna ñenn ñi di gént di say muy ñaari anam góor gu mat sëkk góor dinay faral di gént di sëy léegi-léegi tam mu dal góor muy faral di gént di sëy fekk dafa mat góor moo tax muy gént di sëy bu su boobaa nag listixaara lay listixaar moo lay wan li nga xamante ni moo ci réalité soo ko seetee di nga xam ndax rab la wala ndax euh, lu naturel la di ci xam dara léeg-léeg tamit rab dina koy faral di def di def góor muy tëdd gul muy tëdd guddi di génn di sëy wala jigéen di tëdd di génn di sëy ak góor loolu yëpp rab dina koy faral di def souvent mu dikkale koo xam léeg-léeg mu dikkale koo xam ne xamoo ko waaw loolu yëpp nag ci sëriñ bi lay ñaanal moo koy seet ba xam yooyu yëpp ban la ci su ko defee góor su mësëree dinay faral di def loolu góor bu ne ba toll ci mësër dinay faral di tëdd di génn di sëy jigéen tamit noonu waaw yooyu yëpp lay mën wan li nga xamante Euh, rab la wala du rab su ko defee secret bi ñu indi tey ji di ko baaxee mbokk jullit yi mooy luy faj rab moo xam rab bi daaneel nit la wala rab bi nga xamante ni du ko daaneel waaye dafay yàq wàllu wërsëgam di euh, di ko jax-jaxal wala mu koy jaxaseek ay mbokk rab boobu nag niñ ciy joxe tey mooy siru ayatul kursi siru ayatul kursi ngay bind <coughs> waaye yaa ngi koy bind adadu cent onze mooy kaafi